asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii ci Ribapal ba léegi tey nag mu um, ànd ak beneen délégation di uh, Assane Diop président du conseil départemental ànd ak benn ndimbalu conseil départemental fii ci Ribapal délégation bi mu àndal ñu ngi nii toog ànd ak nag des conseil municipaux des conseils départementaux ku ci mel ni Ada Camara Barham Thiam mu ngi fi wax uh, ndimbalaal mu ngi fii ak uh, cabinet bi ku mel ni Jean Ndiaye ñu ngi ci ànd ak Souleymane di Diguèr ak Waly Seck moom it ñoom ñu indi seen dimbal pour jàppale leen di fàttali rek li fi xewoon mooy que ne lakk gu métti gu garaaw gu xamul fu mu jeekoo moo am fi ci dëkk bi di Ribo Peul ba léegi li ma leen di wax dëkk baa ngi lakk ba léegi démb rek la mu mujj kër gi xam ne foofu lakk gi commencé woon dafa lakkaat tey nag waa conseil départemental def délégation bu mag sëkk pour ñëw jàpp si leen ñu indi leen ñoom tamit seen dimbal xam naa dañu dugg ci biir fekk leen fu ñu toog a jot seen réaction ci mbir mi ak lan ak lan lañ siku ilivyo ya sababu ndeba bi non te présenter délégation bi xamna mo la ngi dekk ñepp xam nañ ko ci dox lu baax ki moom mooy waa Tunkara Tunkara Gër Tunkara chef de cabinet am la aussi moom xam ngeen ko fii ci ay nawetaan yi ak aussi luy def teew fii ci département bi dafay bokk kii Waly Seck moom attaché de cabinet Assane Diop kii nii Baray Thiam moo yore commission commission sociale ci conseil département Omar Ndimbalaan secrétaire élu conseil départemental ak Zal Ndiaye moom it Koungheul la nekk bras droit Nadia Assane la ak ak si cabinet la aussi conseil municipal Koungheul ak seen ñaari sofoor kii moom keroog àndoon nañ ci Matar Matar Sarr loolu moo tax ñu ne nañ ñëw fii mu ne mu seet si leen léegi nag man balaa muy di ngeen ay wax parce que man la seet si kon hmm. dama koy rafetlu sant ko si gërëm ko ci parce que euh, gannaaw sama commune la mm-hmm. euh, te ñun euh, yàlla dogal na aussi sama mbokk lañ mm-hmm. bi ñun ñëpp a ko bokk mm-hmm. bon bu ñëwee li may def rek mooy sant ko gërëm ko monsieur le commandant loolu laa ci amoon lu may wax ñu ñaan yàlla aussi yàlla yokka kattan yi li ci am aussi mu géej fii ah, mu nekk loo xam ne aussi day nekkaat yokkute ci nit ñi parce que yàlla moom lu mu def rek jàmm war nga ko accepté loolu moo tax démb bi ma woo itam damaa woote ma ne na ngeen daje chef de village man woo naa la jotuma la aussi kii mooy chef de village waaw loolu mooy yoon bi daal hmm. ñu ngi leen di gërëm di leen santa di leen wax la aussi lakka bi comme li ma leen waxoon keroog te waxoon naa leen keroog ñu naan ko sant ñëw nañu parce que kenn nit ñi mën remplacer nit hmm. waaye nag mu ne du daal il faut mu ñëw moom it gisal boppam waaw ñu ngi ko ci remercier bu baax di ko sant di ko ñaanal mu àgg ak delloo ci jàmm ak jàmm merci. suñu woon délégation bi moment bi muy wax ak yéen le président Sane Diop muy wax. kàddu gu njëkk bi mooy alhamdulilahi rabil alamin ndax lu mel nii am na feneen fu mu am ay bakkan dem ci kon lu mu métti métti comme yàlla musal nañu ba bakkan dem ci sant yàlla la bu njëkk masawu leen ci ñàkk gi ci am ndax béy yaakaar ko mu dem métti na sonn am sa néeg mu dem métti na kon ñu masawu leen ci loolu baax a baax a baax xam ni euh, mbiru yàlla bu ñëwee rek ñëw na euh, li ci topp mooy mi ngi amee ci commune Ribo yeneen commune itam am na yeneen yu fa xew euh, moo tax foo jaar bu ñu jógee maire la ñuy waxal yàlla def muy sama jarbaat nekk suñu xarit kon lii bu amee ci commune am dafay jaadu ñu jóg ñëw jàppale ko ci liggéey bi xam naa ni def na waru garam waaye ñun dafa rafet rek ñu ñëw topp ci ñuy tamit jàpp ci parce que loolu mooy liggéey diggante commune ak département ku ne xam na ni commune bi maire bi moo ko yore waaye comme département bi itam daf fi nekk dafay ànd ak maire yi di liggéey kon bu dara xewee ci commune bi dafay rafet ñëw fekkee euh, di ko félicité nag bu baax occasion la gis nañ liggéeyam ci biir commune bi euh, ak taxawaayam taxawaayam tamit gis nañ ci feneen yeneen commune ba ci département ba ci région Kaffrine nekk góorgóorlu Euh, non, la nit bu ni politique politique politique politique bu yatou euh, pour président de la république nga def président de la république Macky parce que si amé carte wala ma carte mu ñew ci yeen dañ ko président Macky parce que mom moy doxal politique de décentralisation doxal politique collectivité locale kon képp ku falu mën dara sante ko ko moom tamit gërëmee ko ko ndax yëpp dafa am sol occasion la itam pour sant gërëm seen commandant brigade ci taxawaayam ci liggéey bi ndax ku ne xam na ni tey euh, bésu feet la waaye dafa bàyyi lépp ñëw ànd ak ñun seede si li ñuy euh, du ma sori ci présentation bi maire wax na leen ñi ma àndal ñëpp li ñuy bokk ñaan yàlla li géej fi lool géej fi lool bu mu fi amati sax moo gën géej fi waaye ñu ñaan ko yàlla ah, te itam nag di bàyyi xel ci dëkkuwaay yi ah, li ko wër ñax bañ koo jege parce ñax bu jege rek dafay bu tàkk amee dafay gaaw waaw ñuy fexe daal ci fexe ba ñax yu dee yi gën a sori dëkk bi ak ci diggante kër yi tamit ñax yi day sori ko loolu itam dana dimbale bu baax ak itam di bàyyi xel ci foo xam ni mun nañ ko tabax lu mel ni mbalka boo xam ni ñu fay bàyyi xel di fa bàyyi ndox euh, kenn ñaanul yàlla mu tàkk waaye bu amee itamit am yëngatu bu jëkk pour fay dafay baax loolu yëpp ay ci biir dëkk nañ koy bàyyi xel daf ci am solo lool lool lool

primaire ci loxo seen maire ok ah waaw waaw waaw waaw euh, le président conseil départemental indi na ci enveloppe bu 500000 francs nee na jox ko le maire. Euh, Yaya Sow teg ci loxo borom dëkk pour jàppale ko ñu xam ne ñoo yàqul fii ci Ribo moom tey ñu ci ndimbalam mu indi enveloppe bu 500000 francs pour jox leen ko mu ngi noonu teg ci loxo Yaya Sow Yaya Sow di ko jël di ko jox la borom dëkk ki xam ne moo fi nekk muy 500000 francs bu mu jël jàppale leen ko ñoom ñi fi nekk moment bi ñu wax ak yéen représentant chef de village bi mooy wax moom waaw mooy wax nee na. affaire bi commencé. waaw ñu woo ko. mu ngi ci taxaw. mu ngi yëngatu. ba ñëw. moom itam nag def na lu man léegi nag yooyu itam ñëw ngeen def leen nu ngeen man ñu ne ñu ngi ñaan yàlla. nañu yàlla jàppaleen. ngeen yàgg suñu kanam. yaa barke yàlla. asalaam. ok. le chef de village moo la wax ne na kontaan na ci mbir mi neen gis na Yaya Sow mais itam gis na le président Assane Diop moom itam ñëw def lu mel nii moom itam waaw nee na kontaan na trop ci mbir mi je crois que lu daal lu toll ak 500000 francs le conseil départemental indi ki ko indi di président Assane Diop ñëw joxañ ko Eh, waa dëkk bi ñooy gërëm euh, la commandant mooy wax noonu ñooy gërëm ci bi fi ñëwee ak euh, ñàggul mais dafa ñëw ànd waa dëkk bi di liggéey ak ñoom mooy le commandant brigade moo nekk noonu nee na waa dëkk bi gërëm nañ ko rek tànk la doxee ribo ba fii nii pour ñu xool li fi nekk constaté li fi nekk loolu nekk lu am solo kon donc liggéeyam rek lay def kii itam di wax si seen village si dëkk bi la dëkk mu ngi nett li mbir mi ni muy demee ni fi yaayee soo def ak président Sall mu ñëw foofu mu laajte mu enquête ñu wax ko affaire safara bi ni mu dikkee waaw moom teg na ci bot kon nag eh, ñu ngi koy félicité lu baax a baax lu mooy loolu ak monsieur le maire kooku itam def na waru garab waaw ndax bi mu ko yëgee booba dafa tukki mais toujours ñun ñëpp mu yore suñu numéro dañu oo dañu laaj ci ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant li passé loolu itam yow ak sa délégation ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen a gërëm di leen sant da leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla yokk ñu boole ci ñun ñëpp ñu ànd ak mbaafu yàlla bi nañ leen sant nañ leen ndax yow itam sa jimu ak sa fayda ak sa délégation ngeen dégg lii fii ci àll bi mënoon ngeen toog foofu rek du leen wàññi dara wante ay jullit ngeen loolu moo tax ngeen ñëw ah indi seen bagage jàppale ñu ni ngeen ñu jàppalee yàlla na am li ci nit ci. waaw euh, ki ñu yàqule. <laughs> waaw man daal ñu gars yi gërëm dëkk bi. mbokk yi yéen a ko gis lii la ci Ribou Peul le président Sane Diop di président conseil départemental de Koungheul moo fi ñëwoon indi ndimbalam ci lakk gu métti gu am ci dëkk bi ñeneen ñi fàttali rek ne démb rek lakkaat na parce que lakk bi xaw na jaaxal waa dëkk bi. moo tax ndimbal li xeebuñ ci dara képp kuy loo man pour jàppale ñii rek mën nga ñu jàppale leen Koungheul Info nag ñun lii moo ñu tax a jóg lu ñu ñëw fekk si ko jël ko wane ko mbokk internet moo dañuy déplacé waat ñëw fekk si lii nii ñëwoon nañ fi temps yi ànd ak ànd ak Yaya Sow ak euh, son ami Daouda Dia ñu indi fi lu takk ñëw jox ko waa dëkk bi te nag and nañ le président du conseil départemental Assane Diop moom it mu ñu indi enveloppe bu 500 000 francs pour jox ko les sinistrés mbir mi métti lool desewuñ dara parce que nawet nga bàyyi ba pare lépp lakk amoo doo dara loo dese loolu dafa métti loolu nag moo tax Koungheul Info di laajte rek di di ñaan ndimbal les autres képp ku man di bon volonté nekk keneen ko xam ne nekk ci def wala gis nga vidéo bi nii war a jàppale lii boo jaaree ci la maire Yaya Sow ou bien nga jaar ci keneen mbir mi dañ ci jot parce que la maire Yaya Sow moo ñu dalal ñu jël enveloppe bi teg ko ci loxoom mu jël enveloppe bi jox ko sinistre yi muy seen yu nekk moment bii la ñu ngi def ay ñaan képp ku mën a tàllal wax nga déggu nga déglu ñaan yi fii la ñu yeew ak daj ak yéen di leen gërëm di sant déglu tàllal suñu loxo déglu ñaan yi yi xam ne ñu ngi ñaanale président Sane Diop Yaya Sow yi xam ne ñoo fi ñëw الغاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار ومقداره إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا وتسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله mbokk yi loolu loon kon ñëpp wax amiin lii gëj fi lii wala bu fi amati sax parce que métti na métti goo xam ne bu ñu sañoon ku nga leen fa ànd ak ñoom jël si lii nii day jëriñ gëm di